ci ajuma fukki fan ci weeru août ci atum ñaari junni ak fukk ak juróom-ñett danoo jàpp ni danoo dégg jot information buy wane ni le directeur de la poste monsieur Siré Dia dafa yëkkati euh, benn cadre poste bu tudd monsieur Abdou Ndiaye ci barabu liggéeyukaayam yëkkati gum ko fa yëkkati boo xamante ni nag teguwut ci fóot boo xamante ni monsieur Abdou Ndiaye commettre na ko ci wàllu liggéeyam mais daf ko yëkkati tout simplement parce que monsieur Abdou Ndiaye étant inspecteur ci po euh, poste dafa am benn amicale bu muy jiite bu ñuy wax ADEP mu regroupé ñi nga xamante ne ñoo am ay lijaasa ca jàng ci école bi ñuy wax école de de la des postes du Sénégal ginnaaw bi nu defee nag ñoom seen benn rencontre muy benn conférence publique di naqarlu anam bi nga xamante ni poste noonu lay doxee di naqarlu situation ci wàllu koom bi nga xamante ni post fi mu nekk nii fa la toll ca ne mu nekk loo xamante ni tamit kenn umpaliwu ko ñun ñëpp xam nañ ko muy poste fi mu nekk nii financièrement dafay traverser ay situation yu difficile loolu Abdou Ndiaye du moom rek moo ko wax même ministre du budget ñoo xam nañ ko président tamit prononcé wu na ci loolu Abdou Ndiaye étant le président donc de cette dite amicale mooy jiite amical boobu noonu bi mu paree def conférence ba pare ci lañ ko jële ci post bi nga xamante ni ci ci la doon fa la doon liggéeyee muy receveur ki jiite woon maanaam poste bi nekk Dakar Fann mu nekk nag maanaam yëkkati ci barabu liggéeyukaayam boo xamante ni dañuy jàpp ni teguwut ci yoon mu nekk dindi ci barabu liggéeyukaayam boo xamante ni dañuy jàpp ni defuñu ko ci droit defuñu ko ci légalité defuñu ko ci justice Abdou Ndiaye nit ku gore nit ku baax nit ku xam li ko war ci wàllu liggéeyam xam ni comme ni ko bépp citoyen sénégalais war a xamee barab bi muy liggéeyee kat mi ngi traversé ay situation yu difficile yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla la nga xamante ni moo indi situation yu bokk na ci maam ka jiite kër gi ni ma ko yoree ca lu ci bëri mbirum politique tamit am ci situation boobu noonu nga xamante ni dafa interpellé bépp sénégalais du ma ni rek waa mais dafa interpellé bépp sénégalais Abdou Ndiaye pour wane ni kat moom àndul ci doxelin boobu noonu nu muy doxee parce que lu ci mën a am lu ne moom il est responsable parce que il est un cadre donc de la poste lu ci mën a xew lu ne kon moom il est interpellé mu jóg ànd ak ay naataangoom yi nga xamante ni ñoom il sont des fonctionnaires yoo xamante ni dañoo dugg poste après bi nu defee seen concours ba dugg fa di fa liggéey kon lépp loo xamante ni lu laal poste la ñoom da leen di da leen di interpellé directement Abdou Ndiaye bi mu defee loolu. pour wane ni ñoom lii ànduñu ci ndaxte man naa yóbbu poste ci situation yoo xamante ni yu difficile la ah ci lañ ko jëlee ci barabu liggéeyu kaayam boobu ñun nag en tant que jeune de Darou Moussi en tant que fils de ce territoire mais en tant que sénégalais parce que problème bi du problème mu Darou Moussi rek parce que Darou Moussi poste Darou Moussi moom ko postu ça appartient à toute la population sénégalaise kon bu fekkente ni dafa am problème boo xamante ni dafa laal poste ca mu jëme poste ci foo xamante ni kenn xamul fu mu jëm kon du ma ni daaruwaa daaruwaa kese mais sénégalais yëpp dañu war a jóg taxaw ci parce que poste dafa bokk ci maanaam barabu liggéeyukaay yi nga xamante ni bokk nañ ci liy dugal liy ëpp luy dugal koom ci réew mi te tey kenn ku ne gis na tamit ni transfert d'argent yi ñu ngi def am na benn concurrence bu bu metti boo xamante ni poste mi ngi ko jànkoonteel ca loolu bu continuer ak ni ñuy gérer loolu mën na dem ba yóbbu poste mu nërmelu te su boobaa du caa du Abdou Ndiaye donc ci perte du cadre yi kese ñoo ci perte du post kese moo ci perte mais su c'est tout un peuple moom moo ci perte et ce peuple la mooy le peuple sénégalais. léegi bi mu loolu nag bi mu amee ñun les jeunes de mu si bokk ak moom màggandoog moom fii am ñum jàngandool xam Abdou Ndiaye nit ki mu doon nit ku dëggu. nit ku gore nit ku maandu nit ku am professionnalisme ci li muy liggéey ñu xam ni kat lii nii ñun suñu devoir la ñu jóg ànd ak moom wan ko sunu solidarité wan ko sunu soutien wan ko tam ni ko lii ko dal ñu ngi koy ànd di ko naqarul ak moom ca tamit den ci ànd ak moom xeex ci ak moom ci li nu yoon may ba monsieur le directeur général de la poste du Sirédia erreur bi nga xamante ni commettre na ko parce que tamit maanaam def lu baax tamit du weesu il n'est jamais trop tard pour bien faire mu xam ni kon def na erreur xam ni c'est un cadre xam ni c'est un citoyen sénégalais boo xamante ni la ko taxoon a jóg c'est juste pour défendre des valeurs c'est juste pour défendre des principes c'est juste pour défendre benn boîte boo xamante ni mu ngi ci situation boo xamante ni financièrement bu difficile loolu moo waraloon mu def sorte boobu ci loolu nag ñun ci lan dajaloo comme ni ñu ko waxee dem seeti kilifa diine yi commencé ko ci le xalif muy Serigne Abbas Mbacke ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér comme ni ko Birane waxee dem ci Serigne Bass Abdou Khoudoss nga xamante ni mooy porte parole euh, famille Cheikh Ibrahima Mame Thierno Ibra Fati dajaloo tamit ñun jeunes yi mu nga xamante ni comme ni ñu ko waxee mun mbir nekk mbir moo xamante ni lenn politique lalu ko ndaxte buñ ci xoolee fii nii ci table bi am na ñoo xamante ni ñu ngi ci parti au am ñoo xamante ni ñu ngi ci opposition am ñoo xam ne sax bokkuñu ci parti te boo xoolee tamit salle bi tamit noonu la demee. di masawu balaa maa commencé di def dara ki nga xamante ne mooy suñu frère suñu mbokku taalibe di Serigne Abdou Ndiaye nga xamante ne moom moo nekkoon receveur du bureau des postes bi nekk Fann ca Ndakaaru am loo nga xamante ne daf ko dund ñu jàpp ne dëppoowul ak liy yoon. wala tey jii képp ko nga xamante ni daar daaru Muxti nga képp ko nga xamante ci dëkk bi nga dëkk nga ñëw fii fa yéene ànd ak ñun naqar wi ngir ñu

da doon taxaw askanam ba commencé di dund li ñu tuddee intimidation bii nii tey ji moo tax ñun ñëpp ñu dajaloo topp ci ginnaawam li gën a am solo ci ndaje mi nag mooy foog naa ni bu ko directeur bi seetaane wala ñu jege directeur wala ñu jege le président de la république war naa xam ne lii amul benn coloration politique am na ñu fi teew ñoo xamante ñu ngi ci mouvance présidentielle bi am ñu nekk dans l' opposition am ñu nekk dans la société civile ñoo xamante ni su doon mbiri politique rek doo leen doo leen fi gis duñu fi teg seen tànk donc bu ñu fi teewee c' est parce que dafa am benn mbokk taalibe benn doomu Sénégal boo xamante ne dafa jóg euh, ji yàlla def mu bokk ca cadre ya donc la am mérite la kon jaadu na képp ko nga xamante ne tey yaa ngi ci réew mi lii nga xamante ne moom lay traversé nga ñëw jàppale ko parce que man dama ko wax démb bi ñu dajee ci rencontre dama ne li daal Abdou tey jii man na maa dal mel mi nga xamante ne maa ngi tey ci mouvance présidentielle bi ndax ki fi nekk mënu fi nekk éternellement donc deux mandats successifs la mën a am bi ci toog mën naa wàcc keneen jiite war réew bi donc bu ma dalee bu nit ñi gisee ni bi mu réew mi lii moo koy suqali du da ngay farak ki nga faral rek bu amee problème doo ko wax parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni seen mbokk bu ko tooñee da ngeen ko war a jàppale bu tooñee da a jàppale ñu ne ñun de xam nañ nu ñu ko a jàppale waaye bu ko bu tooñee nu ñu ko bu tooñee nu ñu ko war a jàppale waaye moom bu tooñee nu ñu koy jàppale xam yonent bi ne seen bokk bu tooñee bu ngeen ko bëggee jàppale da ngeen koy wax ni ko yaa tooñ donc ñun jàpp nañu ki ñu àndal te bokk ak moom fu ñu yëngu jàpp nañ décision bi mu jël wax dëgg yàlla dëppawul ak bi waaye nag c'est pas trop parce que le président de la république nga xamante ne moo yilif ñëpp te fa Siré Dia nekk moo ko fa teg mu am possibilité am prérogative di nommer ak di teggi na xam ne ki mu wàccee li ñu tuddee faute professionnelle bu jar wàcc ñun gisuñu ko fi kon jàpp nañ ni le président de la république waa Daaru Muxti ñu ngi lay tàllal loxo te xam ne ñi ngay jàkkaarloo ci écran bi sa ndam moo moo leen yitteel donc bu ñu sañoon tey jii décision bi ñu ñu ñu